or dañ ko jëlee ci poste moo tax muy attaqué léegi. xam nga man damaa fekkee. Hmm. damaa fekkee nekkam ci période bi nii. Lansana. Euh, non Lansana xam naa ko maa ngi moom ñoo jàngandoo ñoo bokk école tant mu ngi nekk directeur général amul problème ba mu nekk. parce que ñëw yaakaar ne dem mu dem mais Lansana vraiment amul gabarit pour ñuy wax ak moom parce que. ah pourquoi amul gabarit ku amul gabari ngeen def ko directeur général. Euh, ONAS non directeur général def ko général office de Guiers. directeur général ak politique du benn. ah mais attends directeur général il est dans l'opérationnel. Euh, il est dans la mise en œuvre. non jàng na ko. mais politique politique yow da ngaa mës a dégg Gagny Sakho ci politique avant muy dem avant ñu koy génne euh, directeur général. amul base non non non dama leen ne da nga ko mës a dégg ci politique. ñu ne la kii APR la bokk fii mbaa fii la bokk mës ko ko ci dégg. Ah, membre de la convergence des cadres libres des cadres républicains et il a même pris position contre Ousmane Sonko euh, sur la question des inondations non déglu rek xam nga doo moo tax ma ne ba mu demee fàttali ko mooy bañ ko tu dis la même chose que moi mais débat yooyu c'est pas les débats de fond waaw mais tu peux pas dire que Lansana amul gabarit non euh, c'est un intellectuel c'est un homme amul euh, il fut directeur général non maag moom ñu am d'ingénieur bi ñu ma fànn boobu ah, waxuma compétence dama ne gabarit politique la ñuy wax xam nga